jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi sant nañu leen gërëm leen di rafet lu seen ànd ak télévision ma fàttixul Bichri di leen wax rek nes ki ma jukki leen li nga xamante ni rek moo gën a fës niki tey ci seen ay xibaar comme ni ma leen ko waxee rek mbokku téléspectateur yi mbokku internet yi daanu ko daal di doore ca bopp ak ba nga xamante ni rek moo gën a fës mu yemook maanaam weer wu tedd bi nga xamante ni ci la nekk muy weeru mawlud ci noonee nag ñuy amal benn wàccaay muy gàmm wutali foofu ca Tiwaawoon fa la ñuy daal di dem sax nag daal di déglu moom Serigne mbay si ci déclaration bi nga xamante ni jotoon na ko def ñeel wàccaay googule gàmm dañu koy daal di teewlu. bokki jullit yi bu ñu musloo ci bakkan ak seytaane yàlla ci yàlla boole musal ñu ngi ubbee wax ji rek ni ñu ko tàmm di waxe ak di ko defe mooy ci turu borom bu tedd bi subhaanahu wa taala te moo di sant yàlla bu baax ñaan yàlla yàlla ñu ko yàlla boole nangul di julli ci sang bu tedd bi nga xam ne moo waral bis yi ñu jëm muy Seydina Muhammad ñaan yàlla ñu ko mi ñu ko sant yàlla ko yëkkati ba ci dayof Seydina Muhammad na mu ko bëggee moom borom bi mu tegal bi ko ci loxoom ak njabootam ak lépp ñuy tuddee gàmm lan mooy gàmm mbokk dinaa koy faral di laaj lan mooy gàmm ak lu tax ñu di ko def defuñu ko rek tey pour daje mbooloo mu bari defuñu ko it pour wane sance bu bari la Serigne Cheikh Tidiane si wax naan adduna daf koy yéem léegi mu ne buy humanité bu dee mooy lekk ak naan rek ak sol lu rafet ànd ak kala yàlla boo booleel nit di ca juddoo loolu mooy humanité nee na géttu ko dem fekk ko kii ñëw ñu di ko tudd tey muy Seydina Muhammad dafa ñëwoon pour sowen ki ñi li ñuy tuddee humanité dëgg-dëgg seppi ko ci biir li nga xam daf ci biig tegaat ko ci biti ba ñëpp gis ni kii moo fi wutu yàlla muy nit kon gàmm buñ ko dee def dañ koy def pour nafaraat jikkoy Seydina Muhammad ñun ñëpp bu ñu ñëwee kenn ku nekk summikul ci sa mbubb mi nga sol te mooy sa mbubbum biir déglu li ñuy wax ci yonent bi ndax mu ngi ci yow wala nekkul ci yow waaye ñëwuñu rek pour gàmmu di fortasu pour gàmmu di rang di ziyaara pour gàmmu di lekk di naan pour gàmmu-gàmmu gi neexoon na li fi nekk mooy dañu ñëw pour soppiwaat suñuy jikko teguwaat fi nga xam ni moom la ko yàlla bëgg loolu la gàmmu di firi waaye gàmmu ga neex na woy neex na nit ña bari nañu loolu yàlla ci nit ñu bari yàlla li mu bëgg mooy li ma seen maam ja waxoon ci dama ko fëgg benn bis mu ne ma ko kan la ma ne ma ni ko mën a sëriñ Babacar mu ne déedéet sëriñ Babacar kañ li ko yàlla santoon ci la nekk ba bi muy wuy ji boroomam nee ma sëriñ Mbay nangootul ma tudd sëriñ Babacar ma dugg si mu ne ma indi kayit ak big ma indi kayit ak mu ne ma bindal laa naarifu daqa ma ni ko papa mokkal naa ko mu ni ma dee bu mokkoon feeñ ci say cër nee ma yanu nga ko foo dem wax ko te doo ko jëfe kon li ñu soxla ci gàmm mooy nii Sénégal mel fi mu toll kenn xamul où kenn xamul foo jëm kenn xamul dara kenn ku nekk yaa ngi dem mais demul. kon nag mangook ginnaaw bi ñu jugee ci dëkk bu sell boobu dëkk bu di Hadj Malick Sy dañuy daal di wutali ci dëkk bu Serigne Touba Hadimul Rasoul daal di wax ci Touba ca kanam yi nga xamante ni nag dañ leen a daal di jébbal benn conteneur de matériel médical xayma ba nag daal di joxe ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn ci ay million loolu nag di loo xamante ni dañ leen ko jox ngir rekk ñu mën a équiper ñeent ci ay bërëb yu nu tabax ñeel ay poste de santé loolu nag daal di tukkee ci benn ndimbal bu jóge ci yenn ci ay taalibe Serigne Abo Mbacke bokk ci fondation 221 dañ koy daal di teewlu moom it. Sëñ Tuubaa ñi nga ñun ñi nga xam ne ñoo lañ ko teg suñu loxo war nañ ko seere àddina sépp ba ñëpp yëg na jëf ngeen ko fi ñu sant leen ba ñëpp yëg na sant sant nañ leen ñu bàyyi leen ak yàlla mi leen bind mu fay leen. sëriñ Abibou nee na loolu la ci doon seere nee na ngi lay sant bu baax di la gërëm tey ñaan say rakk yu mel ne yow say kem yu mel ne yow nga xam ne da ngaa bokk ak ñoom Cheikhul Khadim nee na ñoom ñëpp nañoo xam ne liggéey bi seen liggéey la nii nga jàppee ci liggéey bi ñoo ñoom it ñu soññu njaboot gi ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp ci liggéey bi liggéey bi sëñ Touba rek ko moom nee na kenn moomu ko sëñ abi bu nee na kër kër sëñ Touba rek la képp koo xam ne la nga yor sëñ Touba la ko may nee na kenn ëppalewu la ci tubaa ca kanam bu fekkee ne sëñ Touba joxu la ko nag wala yaa ko wutal sa bopp nee na nga téye séef di nee na soxlawuñ ko nee na daal lu sëñ Touba amul soxlawuñu ko kon sëñ Mbacke jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax sëñ Mamoun yàlla na la yàlla fay fay njaboot gi nga àndal yëpp jëf jooju jëf. nee na ñoom it jëf jooju jëf ñoom Moussa. ñaari téeméeri million ak juróom-ñaar fukk ak benn. nee na yàlla na ko sunu borom ay milliards. yooyu dollar nag. wala euro. te ñun ñëpp ñu bokk ci nag. ñu wéyal loola ñu wéyal loolu. waaw ah, waaye amu woon ndigal naa ko wéyal. waaye nag amuloon nag ndigal ni dina ko wéyal. kon nag bi ndigal li bu ñu toggee at. bu ñu toggee ay at. lu ëpp fanweeri at ak nangam. bu am fanweeri at ak nangam. xalaat benn xalaat boobu ñu koy doxal. ñu koy doxal jaarale ko suñu xabibu mi. jaarale ko mi. alaaji sëñ tàkko. ak sëñ alaaji tàkko. ak sëñ leen ci jàppale bu baax a baax. kon loolu nag sëñ mi nee na ah, wax dëgg yàlla lu sant yàlla. ñu leen ci a baax. bu baax. jëf ji rafet na. lool. sell na. lool. ku dégg kaddu yi. ku dégg kaddu yi. ak ni muy génnee rek. nii muy génnee. da ci gën a sant yàlla. da ci gën a sant yàlla. gën a sant bu baax a baax. loolu ñu leen ci sant bu baax xam nañ ñu ngi ci biir nañ ñu ngi ci biir ñu ngi ci bi ñu ngi ci tàmbali bi ñu ngi ci digg bi ñu ngi ci digg muy sori lool ba keroog muy sori lool rek ndax du àgg moom ndax mukk du àgg day jëm kanam di àgg rek ndax day gën a gën a jëm ca kanam ba ngeen ko ba ca kanam bañ nañ ba wax ni Touba ca kanam kon nag dañuy dem ca kon nag dañuy dem ca kanam rek kon nag jërëjëf mangook daal di dikkaat ci leeral rek yooyu leen ndimbal di ay matériel médical mu ngi tukkee ci ñenn kenn ci ay taalibe yi sëñ Mamoun Mbacke ñu gën ko xam ci Moussa Niang bokk ci fondation 221 ci noonu dañuy daal di àdduwaat ci leneen wax nag wutali ci foofu ñuy wax maanaam dëkk boobu ñuy wax demoon diir maanaam di gox bu nekk digalool diggante Bignona ak dëkk boobu ñu wax Badiouré maanaam benn jéeye bu gara bu benn jéeye ngeen baal moo fa daal di am ci noonu nag muy benn góor yàlla boo xamante ni dañ ko daal di faat moo ko jarbaatam ci faat boo xamante ni yéeme na tax nag dañ xam ne mooy def katu ñaawteef ya kat dañu ko daal di cor ba mu mujj ñàkk bakkanam ca la ko sabab sax nag mooy ni doon na jéem a defante ak ñoom rek ngir mën a rëcc ci lu ni mel la ci noonu nag lañ ca xam ne sax mooy anam ya nga xamante ni ca lañ leen fekk ba mujj jël seen bakkan mooy ni kat ñi ngi àndoon ak loolu ñuy wax seen ay jur doon leen yóbbu waaye ci noonu gendarmerie moo xam kat mooy jamono ji ubbi nañu ab l'enquête waaye it dañ fiy daal di teewlu rek ki nga xamante ni mooy doomu ko ñàkk bakkanam muy Seydi Sagna ñu teewlu ko moom it ci leeral yi nga xamante ni jot na ko indi ak mbetteel bu ni mel. naxar te sama xol képp koo xam ne yaa ngi dégg tey euh, am naa lu man naxari naxari boo xam ne bu ma la ko waxee da ngeen di ne est-ce que kii lu mu wax lu am la. sama pap la ñu saccagé tey euh, si géttam pour ñëw euh, nangu géttam bi pour euh, dem nangul ñe moom la ñu saccagé rendi ko ak ay arme ay jaasi ak neveu bi. ñu ne lan moo tax ñu rey ko. dañuy ñëw pour sacas suñu nag yi loolu moo tax ñu rey ko nit yoo xam ne bugguñu liggéey bugguñu am parce que. ku am dara doo xalaat dem lor kenn ñooñu ay bandi lañu moo tax fu ma nekk nii maa ngi ñaan kepp koo xam ne mu may dégg na ñuy def toute la lumière claire pour ñu mun a xam ñañ ñoo ma rey ñii ñañ ñoo ma torox sama baay moom laa ñaan euh, autorité yi ñu taxaw ci waa Dombondi bu dee képp koo xam ne yaa ngi may dégg sama kàddu bii. nga taxaw sa ñaari loxo nga jàppale ñu lumière mun a am suñu rey bi ku ñu rey nii mooy chef de village de Mbodi alo neveu bi Ousseynou Sagna ñoom la ñu rendi tey rendi bu ñaaw ngir seen alal ndax yóbbu nañu nag yi euh, nag yi euh, bu ñu ma woon ki sama pap dafa dañ ko rendi euh, mënuma xam ndax yóbbu nañu nag yi ubbee yóbbu ñu nag yi parce que daf ma dépensé ba laajuma leen loolu ndax jàpp nañu loolu rek laa laa leen xalaat alors ou bien euh, gis ngeen leen ou bien gisu leen ñu ne ma dëkk bi yëpp dëkk waa dëkk bi yëpp daw nañu si àll bi pour ut kenn mënu ba tey ci wàllum xibaar mbokku téléspectateurs yi dañuy àdduwaat ci leneen ñëw ci coow li nga xamante ni dafa daal di ci loolu ñuy wax vaccin contre le cancer de l'utérus ñu gën ko xam ci Gardasil lool nag dafa daal di indi ab ba sax kooku ñuy wax le professeur Célestine Furtado daal di cay àddu daal di xamle kat bile vaccin dafa daal di am ay effet néfaste ci ndaw bi nga xamante ni moom la ñu ko war di jox ndax nag lam ca xamle sax mooy buñ ko ko joxee mën na dem sax ba jural ko ay jafe mën nañoo dem sax ba xam ne xale bi kat war na mën a doon koo xamante ni dina am ay jafe-jafe ngir daal di jur ci noonu it kenn ku bokk ci ay ci membre académie internationale bu cytologie moom it xam le na ni mel ba ci doomu Sénégal boo xamante ni ma nga yeewoo ca Suisse lam ca xamle kat mooy daal di dànkaafuwaat askan bu Sénégal ci garab bi ñuy wax Gardasil ñu naan kat dafay daal di dàq lool ñu wax cancer de l'utérus ci noonu lam ca xamle mooy xale bu ko état bu Sénégal daal di xam ne jégale ko ci ki nga xam xamante ni mooy jëriñ bi ñu dénk lépp lu ni mel amaloon benn campagne di xamle kat ni gone bu am soxna xale bu jigéen bu am juróom-ñeenti at kat mën nañu la defal boobu les vaccins ba nga xamante ni di nga mën a mucc ci lool ñuy wax cancer de l'utérus ci noonu lam ca xamle kat mooy vaccin boobu ñuy wax ñu daal di koy tagg bu baax a baax tukkee ci jëwriñ bu xam moom lañ dégg lépp lu ñel wàllum kaaraange gis na ni kat dafa nekk lu nga xamante ni dafa gàll góose képp ku ko jël nañ koy foogee ni kat itam mën na dàq loolu ñuy wax cancer de l'utérus dafa daal di wuute ak li nga xamante ni mooy effet yi garab bi di mën a jur ñu daal di àddu ci leneen bi yoon wax ci son excellence monsieur Macky Sall ni it daf ko amaloon ak Marc Perelman nekk benn journaliste foofu ca chaîne France 24 lam ca xamle kat ci waxtaanam ak son excellence monsieur Macky Sall mooy ni kat àdduna ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci way ku jegi làng ko politique soxal son kooku nga xamante mooy Khalifa Sall mi nga xam ne jamono ji dañ ko tëj kaso juróomi at ràpp waaye it soxaloon na it ci biir waxtaan bam doon amal moom son excellence monsieur Macky Sall Karim Meïssa Wade ma nga xamante ni dafa nekk en exil foofu ca Qatar ci la mu xamle nag donte sax nag ay la yéwén tuddul seen ay tur kii di Khalifa Ababacar Sall ak Karim Meïssa Wade lam ca xamle kat mooy ni jamono ji ñu taxawee tembe yoon bu Sénégal dafay daal di def liggéeyam ci lu ni mel muy teewaayu Khalifa teewaayu Karim Meïssa Wade fii ci Sénégal Sénégal donte dafa xam ne ni candidat la bëgg doon waaye it soxal na moom Khalifa Sall mi nga xamante ni jamono ji dafa daal di nekk ci kaso bi moom maître moom son excellence monsieur Macky Sall dàq na nag ci biir waxtaan bi li nga xamante ni dañ koy wéy di ko tuumale président yi nga xamante ni dañu nekk fii ci Afrique ndax lam ca xamle mooy ni kat saa suñu tëjee nit ku nekk ci wàllum politique rek dañuy wéy di wax ni maanaam président yi nga xamante ni ñoo nekk fii dañuy taqe wala ñu laale ci lu ñeel wàllum yoon ba daal dañ cay daal di teg loxo à jàkkaarloo dañ koy faral di nemmeeku ci justice bu Afrique ak lu ni mel mu nekkoon waxtaan boo xamante ni nag son excellence monsieur Macky Sall daf ko amaloon ak Marc Perelman foofu ca France 24 ba tey ci xibaar yi bi yoon ñu ñëw ci coowal Medina Salaam soxal ña nga xamante ni ak double meurtre la woon ba tax na sax jamono ji loolu ñuy wax la Ligue sénégalaise des droits humains ak loolu ñuy wax la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme ñu gën ko xam ci RADDHO ak Amnesty International section constitution bu Sénégal ñoom jamono ji nag dañu taxaw temb rek di wax ni kat jugement sans délai la ñuy wax ngir gouvernement bu Sénégal daal di ci taxaw ndax nag la mu xam ne day dossier bu nga xamante ni gis ñu lenn loo xamante ni jur na ay lënt lënt ci boobile dossier kon nag dafa daal di jot organisation yi daal di taxaw bu baax a baax daal di woowaat gouvernement bu Sénégal xamle kat fukk ak juróom-benn ci ay nit yi nga xamante ni dañu leen daal di tëj su mandat jamono ji dafa daal di jot nag ñu xool seen situation ndax joxatu nañu fa ci juróom-benni at ak juróom-benni weer ci kaso bi te kenn waxatul lenn loo xamante ni jëm na ci lu nu mel ba maître Assane Dioma Ndiaye daal di ak ay naataangoom ñoom it jot nañu yëy yàbbi ci lu nu mel di woowaat organisation yi xamante ni dañu taxaw teem ni ngir xeex ak ak yelleefu dooma aadama bi ngir ñu daal di ñëw rek taw ak état ngir ñu daal di def jugement sans délai ndax nag moom en tant que avocat la mu xamle mooy jamono ji gisuñu benn obstacle juridique bu tee rek état yile dossier ngir ñu daal di yëy yàbbi ci ngir ñu mën a génne doomu aadama yooyu ci kaso bi wala ñu defal leen loolu ñuy wax liberté provisoire maanaam benn baay yëpp nëgandiku ñu daal di wutali ca bitim réew wax ci lu ñeel Laurent boo mi nga xamante ne ni ki démb nag dafa daal di def loolu ñuy wax retour à ca cour pénale ba ngir rek daal di ju wax xalaatam waaye it wax ci li nga xamante ni moom lañu koy joxoñ tuuma moom ancien président de la Côte d'Ivoire jamono ji nag toogoon na ca box des accusés ngir daal di déglu rek wax dëgg yàlla nga xamante ni moom lañ koy joxoñ tuuba te du moom kese bokk na ci kooku ñuy wax l'ex leader des jeunes patriotes ñoom ñaar nak ñu toogoon ni ki démb ndax nag lan leen doon joxoñ tuuma mooy crise contre l'humanité ci audience ma nag la ñu xamle la tax nag mujjul egg mooy ni kat lépp loo xamante ni défense ba rek taxaw nañu temm daal di koy xamle mooy ne li nga xamante ni indi nañ ko comme ay xool nañ ko ba càmbar ko waaye amul benn yoon fu ñu mënee teg daan moom Laurent ak ki nga xamante ni mooy Charles Blé Goudé loolu daal moom lañ doon xamle niki démb foofu nga xamante ni maanaam la tax sax procès ba yeggul dañ ko daal di tuddee la fiabilité des preuves émises sans cause ñu daal di koy buur xibaar yi ci gàttal ak lu soxal maanaam wutali ca dëkk boobu di Italie wax ci soxna si nga xamante ni doomu Sénégal dañ ko daal di teg loxo lañ ko tegee loxo loxo nag mooy ay faux yoo xamante ni moom la yor ci biir contrôle bu doon amal ak moom ca zone de Piazza Garibaldi nekk ca itali moom nag dañu fekk ci ay loxoom koppar bu takkoo takku ci ay euro mu nekk 60 760 xayma ba nag di joxe ñeent fukki million ci sunu ay koppar ci ay faux yoo xamante ni teg nañ ko fekk nañ ko ci loxoom moom nag soxna soos ginnaaw bi ñu ko tegee loxo la mu xamle kat mooy ne jamono ji ñu taxawee tembe nangoogu wax maanaam yooyu le foo bi fan la ko mën a wutee ci réew moom nga xamante ni mooy Italie mbokkee xarit yi lii moo daal di laflaaj ci li nga xamante ni mooy seen ay xibaar ci gàttal ñu leen di jaajëfal ci ànd bi ak télévision ma fàttewul Bichri di dellu di leen sant di leen gërëm di ko sant bu baax a baax moom El Hadj Cheikh mi nekkoon ci régie bi waaye yétt ki nga xamante ni mooy jibi féete woon ci caméra bi di leen wax nag bu leen dettu benn yoon la koy toftal mooy seen journal météo xibaar yi nga xamante ni rek moo daal di ñeel wàllum jaww ji dinañ jox daje أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين من قال ذكره الأمين لقلبني وجسدي أحببت رب العالمين

الخلق ربي ما

Allah